ñun nag wax dëgg yàlla école bi rek la ñu am nit fu mu def fanweeri at genn wàllu dundam def na ko koo def sa genn wàllu dund boo sañoon kooku day jóg di jëm ci kaw ba tax na euh, ñoo ngi ñaan ñëpp ñi nga xam ne ñoo seet école bi commencé ci président ci ci enseignants yi nga xam ne ñoo ciy jàngale ci parti bi nga xam ne ñoo fi nekk di fi liggéey ci étudiants yi nga xam ne ñoo ciy sàkk si xam-xam ñooñu ñaan ñëpp ànd jàppale ñu ci école bi mu jóg jëm ci kaw école bi nekk na loo xamante ne nii ñun dafa rëy ci ndax bañ fiy ñëw. ay xale yu yàlla dimbali ñu toog fii ba am ay sëñ foofu bu ñu sañoon foofu mooy gën sax ci Sénégal te vraiment ñu ciy remercier ñu ko yore bu baax a baax ndax ñu bëri jaar nañ ci waaye kenn ku nekk def na effort pour école bi bañ a loxo ba ci suñu directeur bii nga xam ne moo fi nekk tey. wax dëgg yàlla ñoo ngi koy gërëm bu baax gërëm li nag dañ koy def ci kanamu ministre bi di ko defee ci kanamu gouverneur di ñaan gërëm li yàlla na dem ba ci kanamu président ndax lii nga xam ne sàmmal nañ suñu école ba indi ko fii dañ koy ñaan. yàlla ko mën a sàmm ba yóbbu ko foo xam ne dañ naan ñu si mënoon jaar ni kenn yóbbu ko ba suñ jógee ci loxo bi loxo ba muy dugg ñoo ngi ñaan kooku yàlla fekk muy ki nga xam ne mooy ci nga xam ne dina ko yóbbu foo xam ne ñu nekk ci école bi ñëpp dañuy yëg ne kii kat yëgoon naa ñu waaye ñuy ñaan suñu mbokk yi ñun comme que ay pàcc la ñu ñaan suñu mbokk pàcc ñu gën a ndax li ñu am tey dañuy ñaan yéen tamit ngeen ñëw ba am waaye suñu sañoon it ku koy am nga am ko ci honneur ndax am lii lu baax waaye nga liggéey di góorgóorlu ca la ngay def ba ñu sentir ne yaa ngi góorgóorlu day tax ñi la koy jox lay defar lii bu boobaa duñ liggéey moo tax ñooñu ñaan suñu mbokk yi nga xam ne ay partenaires ñu gën a góorgóorlu. gën a jàpp seen école xam ne école bi kenn moomu ko yéen a nit foo xamante ne nii bu ku ñëw dala fay fekk ku dem dala fay bàyyi foofu kenn ëppalewul fu la kenn ëppalewul foo xam ne boo fa nekkee da nga fay nekk diin da ngay xam ne liggéey moo la fi indi liggéey fi mu la ngay ñëw à dangay ngay wàcc à l'heure waaye da ngay fexe ba diggante boobu nag lépp lu la fi war suñu directeurs yi ak suñu professeurs yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu jéeral ñu suñu parti bi ndax itam ku néew doole ku nekk da bëgg ku jàpp sa te bu ñu sañoon ngeen jàppale ñu suñu parti bii ngeen yërëmal ñu leen

à la faveur des programmes de désengagement de l'État, notamment l'abandon de l'automaticité et de l'équipement des diplômés dans la fonction publique, l'INR doit changer de statut et d'appellation pour devenir l'École nationale supérieure d'agriculture avec comme innovation majeure la promotion de l'entrepreneuriat agricole au niveau des diplômes. En 2005, dans le cadre de l'élargissement de la carte universitaire du Sénégal, pour en partie assurer une meilleure accessibilité de l'université dans les régions, l'ENSA fut rattachée à la nouvelle université polytechnique de Thiès, dont la modification de l'architecture institutionnelle initiale donna naissance à l'actuelle université Ubadefta de Thiès. Ce bref rappel historique donne une idée assez précise de la capacité d'adaptation et de résilience dont l'ENSA a fait avant d'atteindre cet âge de la maturité, car, vous l'imaginez bien, 40 ans, à l'échelle d'une vie humaine, est une singulière opportunité. À l'échelle d'une institution, elle constitue une étape charnière dans la construction de sa mémoire. L'ENSA est donc à une étape décisive de son histoire, celle de la consolidation de son ancrage déjà bien fort dans l'échiquier des établissements d'enseignement supérieur du Sénégal. Mesdames, Messieurs, 40 ans après la création de l'ENSA, l'on peut dire que le pari des autorités a été gagné. En effet, à ce jour, l'ENSA a formé près de 1000 ingénieurs agronomes, de nombreux cadres supérieurs et quelques docteurs dans le cadre de la mention agronomie de l'école euh, de doctorale Développement durable et société de l'Université Ibadan de Thiès. L'ENSA a aussi marqué la recherche agricole et mené des projets de service à la communauté à fort impact, comme la présentation euh, L'école est également membre du Centre d'excellence agriculture et sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec d'autres universités du Sénégal, et du Centre d'excellence céréales sèches et cultures associées que nous partageons avec des acteurs du monde agricole comme l'Institut sénégalais de recherche agricole. Également, l'INSA a été maintes fois distingué à travers son de recherche, mais aussi ses étudiants qui ont remporté de nombreux concours et prix. Les diplômés de l'ENSA qui sont issus de plus de 15 nationalités, de par leur polyvalence, efficacité, esprit d'ouverture et d'innovation et leur capacité d'adaptation, assument des responsabilités dans divers secteurs, y compris là où on ne s'attendrait pas a priori à les trouver. Ils participent au développement de l'agriculture au Sénégal et en Afrique. Certains d'entre eux sont devenus des icônes internationalement reconnues. Aussi pouvons répond bien aux besoins du marché de l'emploi et son impact développement économique, social et culturel du pays et de l'Afrique est significatif. Ces performances de l'INSA sont le résultat de l'engagement d'hommes et de femmes valeureux, de l'ampleur de leur et constants dans les efforts consentis pour la réaliser. Ces hommes et ces femmes ont été présents tout au long et je puis le croire, le seront toujours. C'est le lieu de rendre la de celles et ceux qui, de façon constante et rigoureuse, ont tenu à mouiller de leur sueur le ciment qui a porté cette institution sur les fonds baptismaux et consolidé sa stature. Certains ont rejoint les chemins de l'éternité en nous laissant de belles leçons d'humilité, de bravoure et d'engagement qui sont le plus précieux, héritage que nous, contemporains, essayons de transmettre à toutes ces générations d'agronomes. Je ne souhaite pas citer le nom, mais je saurais compter sur votre intelligence pour citer feu M. Massakagui, qui a porté et concrétisé le projet de création de l'ENSA. D'autres artisans du rayonnement de l'ENSA sont encore parmi nous et arrivent à faire valoir le droit à une pension de retraite après plusieurs années de bons et loyaux services rendus à la nation. C'est eux qui sont à l'honneur aujourd'hui et je tiens à magnifier leur à relever les défis les plus complexes pour rester une école d'excellence. Félicitations à eux et à leurs parents, amis et collègues qui les ont dignement soutenus tout au long de leur carrière. Tout à l'heure, ils recevront des satisfecits et des cadeaux qui vont symboliser toute la fierté et la reconnaissance que l'université Ibadet Thiès leur manifeste tout en leur souhaitant une paisible retraite. Mesdames, Messieurs, outre l'engagement du personnel, l'ENSA doit son beau palmarès à l'accompagnement de son ministère de tutelle qui a permis à l'école de bénéficier d'importantes infrastructures socio-pédagogiques et a permis de résorber en partie le déficit qui commençait à se faire ressentir en matière notamment de capacité d'accueil. Je vais citer la construction de nouvelles salles de classe et celles de en cours, pédagogique et scientifique. D'autres sont annoncés, tels que le projet d'amélioration de la capacité pour nous de réitérer à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et à Madame recteur de l'Université Iba Der Thiam pour ce geste qui confirme l'importance qu'ils accordent à notre université, mais aussi à l'ENSA. Mesdames, Messieurs, la raison fondamentale qui nous amène à fêter ces quarantenaires est de jeter un regard critique sur le parcours qui a été effectué par l'ENSA, mais aussi de poser un questionnement sur les échecs pour pouvoir

La transition agroécologique est l'impératif d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages en tout compte. Ces défis à une adaptation continue des curricula de formation pour mieux anticiper la demande du marché de l'emploi et accompagner les politiques publiques mises en œuvre en matière de développement agricole et rural. En particulier, la formation agricole doit prendre en compte la place du capital humain dans la concrétisation C'est le lieu de saluer la vision de son Excellence, M. Macky Sall, la République, de faire l'agriculture un des piliers du plan Sénégal émergent et le moteur de la transformation structurelle de notre économie au regard des potentialités agricoles dont regorge votre département, le ministère de l'Enseignement de la Recherche et de l'Innovation, dans la réalisation de la haute ambition de l'ENSA que l'ENSA s'est assigné de former des agronomes toujours plus performants et alertes face aux exigences de l'heure. En effet, c'est une science de déterminer le dosage adéquat d'un engrais, de déterminer le moment idéal d'un traitement de calculer les stades d'exploitation, d'étudier les conditions d'entrée sur le marché de denrées en revanche. C'est tout un art d'impulser les dynamiques humaines capables de porter les changements attendus à tous Mesdames, Messieurs, permettez-moi maintenant de remercier les directeurs qui se sont succédés à la place que j'ai l'honneur d'occuper aujourd'hui, notamment M. Ismaël Diop, M. Moussa Fall, le professeur Papi Bessam, directeur honoraire de l'Université Ibadet Thiès, le professeur Abdoulaye Gueye, docteur Ahmed Tiyan Diallo. Chacun d'eux a, dans la mesure de ses capacités, travaillé soit pour jeter les bases de cette école, soit pour consolider Vous trouvez ici les mots de reconnaissance et de profonde gratitude pour votre contribution à la construction de l'ENSA. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à la marraine et au parrain de la 40 promotion, respectivement Madame Awanya Noy, diplômée de l'école, et Dr Abdoulaye Paramé, qui a été directeur des études de l'ENSA de à Et j'en profite pour exhorter la 40 promotion à adopter les valeurs de l'école et à œuvrer pour le renforcement Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de remercier euh, les, les, invités, les directeurs venus de parmi les représentants, directeurs, les comptabilités coutumières et religieuses ici présentes, euh, d'avoir bien voulu eux aussi de leur présence cette cérémonie de lancement du quarantenaire. Qu'il me soit permis aussi de remercier Monsieur le Président du Conseil départemental de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le maire de Fanel, commune qui nous héberge, pour leur constante sollicitude